diplôme ñu defal la entretien wala de boo joxee sa diplôme ñu defal la entretien ci entretien bi la ñuy xamee mën nga wala moom mënu dëgg la wala du dëgg waxakaza yàlla tamit noonu la afa xasibtumu an tutraku an yaqulu amanna wa hum laa yuftanun wala xad wala xad fatanna alladina min qablikum ah, yàlla balaa mu laa accepté nga nekk jaamam da ngay wax ak moom ba noppi moo tax mu ne ci hadisul qudsi moom mi suñu borom subhanahu wa taala faarifuuni qabla an taabuduuni fa in lam taarifuuni fa kayfa taabuduuni aw kama qaal ah xam leen ma balaa ngeen may jaamu jaamu lii mooy dëgg gis nga Afrique particulièrement senegal gi may yeewoo fekk respecté wuñ être humain billahi wallahi tallahi liñ bëgg ci àddina duñ ko am liñ bëgg ci yàlla duñ ko am te mag ñi fi nekkoon ñëpp loolu lañ réussir bi am yàlla respecté ñëpp xàmmee wuñ ki leen bëgg ak ki leen bañ xàmmee wuñ ki leen di nax ak ki leen di euh, ku leen dul nax ndax yàlla rek la ñuy gis waaye nañ yéeg ci niveau boobu ñun ñëpp ñu bàyyi woon ci xel incha allahu kon suba ci kàttanu yàlla ñun ñëpp nañ fa daje tem bi mooy tànn ñoom ñoo tànn seen thème xaaj masin la ñu ne tem bi mooy tànn tànn rek lañ bind ñoom tànn ak a baax eh, thème bi farata la tànn jabar tànn jëkkër tànn borom kër tànn soxna est-ce que tànn président tax ko jóg. waaw xam naa président tax ak waaye man balaa maa yegg ci président danaa leen ko bomb gëm saf sax dañ foog ne man damay xëy rek jëm dal ci président du ma ko def ndax président defut kenn dara ñoo def suñu bopp balaa maa yegg ci président xam fii ma njëkkee laa leen di wax ku jiitu président du judd buñ takkante wut judd dana wala or mariage dafay am te boobu yàlla bëggu ko wala déet. kon foofu lay tàmbalee tànn jabar li tax ma jabar xam naa ko tànn jëkkër tànn soxna tànn borom kër tànn sëriñ tànn taalibe tànn xarit tànn àndandoo door a yegg nag ci tànn maire déedéet xam ndax ñun war nañoo tànn wala déet wallahu yaxluqu wa yaxtaaru ma kaana lahumul xiyara boobu laa cay duggee wallahu yaxtaaru wallahu yaxluqu wa yaxtaaru ma kaana lahumul xiyara lu tax yàlla wax loolu ci alxuraan wallahu giñ ñaane man buur yàlla yaxluqu maa bind ndax kenn mënta bind ku dul man noonu la koy firee wallahu giñ ñaane ndax waaw bi waawu xasam la giñ naa ne man yàlla buur yàlla wallahu giñ naa ne man buur yàlla yaxluqu ma kenn mënte bind ku dut man ku mën a bind waxal estati yaa nii benn doxagu ci te ñu ngi ne xus ci dëkk beeg àddina bi estati boo toog wax ak moom mu wax ak yow amagul te léeg-léeg nga gis estati bu ñu rek Chérif Ibrahima waaye taxul mu wax moo tax nag mu ne comme yaxluqu maa bind wa nag may tànn maa déet kaana di leen alxiyaratu tànneef tànneef la wax waxul de dégg ko waaw waxul tànn kaana lahumul ixtiyaar dafa ne maa kaana lahumul xiyara xiyara mooy tànneef dañ lay tànna ba pare tànn nekk ci biir tànneef moo tax Maodo wéy ko ci xilaas fal urbu xayru unaasin suma xayruhumu xuraysin fa huwa xayru xayri fiihimi boo koy tànneef yàllaa ko tànn moo tax mu nekk tànneef moo tax eh, Maodo neexul wax ay waxam yàllaa tànn yonent bi moo tax muy tànneef ñun nag lañuy tànn xam nga noo koy déggee boo tegee sa leketu ceeb yow jigéen di tànn dugubu picc ak dugub bu ñuul loolooy tànn waaye léeg-léeg nga am yoo ca fàtte ba yegg ci cin la oustaz yi di may yee mu ne kuréet mu yàgg yàgg ba maa la ko kuréet kuréet muy mu yàq lam ci bon yëpp benn boobu yàq na ko moo tax léeg-léeg nga na koo xam ne ci kurpe ñante ngeen ngi mucc maa la ko wax mu futteeku nga futteeku ngeen joxante ko ba mu saf-saf tànn baa baaxul ndax da nga bàyyiwul ñu tànnal la ndax mënoo tànn ndax yàlla nee na la maa kaana lahumul xiyara kon kan moo war a tànn à demain boobu à suivre kan moo war a tànn c'est ça le problème ku war a tànn ndax ñëpp war a tànn ak kan la ñuy tànn ki ñuy tànn nu muy mel fu muy jógee lay mooy caractère nu mu war a mel pour ñu tànn ko tànn yombut de moo tax àjjana balaa fa kenn di dugg say baqate ne bàcc ci biti maa la ko àjjana gële parce que yàlla dafa tànn ñu fay dugg moo tax safara bi mu tànn ñi fay dugg nag su mbox loola maa la ko moo ta muy su mbox loo da ngay wa waaxu rek ne da ngay ci biir moo tax sëriñ ci am ne léeg-léeg nga dégg wàcceel sama tànk da koy dëggal wax ko nga dégg waaw taxaasu mu ahli naar moom la doon firi boobu taxaasu mu ahli naar moom la sëriñ Cheikh doon firi mu ne léeg nga dégg wàcceel sama tànk yaa ngi may dëggal mu ne waaye boobu amu fa barab baaxal dëggal amu ko barab baaxal wàcceel sama tànk yi ak muy dëggal te bu ahli naa espace boo xam ni cinq cinq mètres carrés la téeméeri nit bokk wallaay Fatima yaa ngi may xeeñal sa bokkutaan yi téeméeri nit bokk espace boo xam ne cinq mètres carrés la ma ne ma embêté woon ma embêté leen waaw ahli naa man lu ma leen wax rek am naa référence immédiatement laa ko am ahli naa baaxul loolu ñàkk tànn na koy waral ah foofu amul tànn moo tax fi am tànn nag bàyyi am alang la waaw laa yasmauna fiha laxwan wala kisaaban lu tax jazaan min rabbika ataan fii la woon moo mu yomb jazaan min rabbika ataan xisaaban lu tax mu yomb rabbu samawaati wal ard wa ma baynahuma yal nañu yàlla doon di sutura nañ dellu ci alquran waxoon naa leen ko fii nañ dellu ci alquran mooy base bi moo fi ne leneen newu fi lu dul alquran nañ dellu di sutura xaaj ñu jox la kàddu gi noo bëgg rek nga defee noonu la neexee nga wax toog bu la neexee nga wax dem bu la neexee nga wax nag lu ñu loolu la neex loolu la neex yow fii yaay borom loo fi bëgg loolooy am loo fi bëggul loolu amul kon ñu ngi lay sant bu baax a baax moom xoolul ci ma dem ak ma toog xoolul ci ma ñëw ak ma ñàkk ñëw fu ma amee fursa rek ñëw loolu ñu ngi koy sant di ko gërëm mbaaxam na nit nag bu baaxee day jël mbaaxam rek jox la nga yaakaar ne yow la waaye fekk du yow de moom la kon nag xaaju ma si la ñu ngi lay sant bu baax a baax